moo tampinde Jeya. nee na papaam Thierno Mountaga ñu mu gënoon sonal si seen adduna si la taal taal man mooy na am na ay taal. loo xam ne nii. ñu ngi nekkoon si wet ay seen wet. kono baabam Thierno Mountaga. waaye baayam Thierno Mountaga. rokkaani dum hay na mayu ko dara. li xale yi wax du la may dara. baabam Thierno Mountaga jàngin. nee na papaam Thierno Mountaga nee na day jàngale. kanko jànginan noonu. nee na moom moo ko doon jàngale. kono waaye. baabam Thierno Mountaga. nee na paayam Thierno Mountaga. tarbiya haqiqa. nee na dafa tarbiya bu baax. Thierno Seydou nee na Thierno Seydou loolu. diida e taalɓe heddi nee na bokkul ak ak yeneen sa yiɗi neleede e boo buggee ñu yónni la président o nelma mu yónni la si président geɗe aduna nee na bu nekkee da nga bëgg yëfu aduna nelma mu yónni la waaye baayam ceerno muntaga mawɓe nee ñi anduɓe nee na ñu ko xam bu baax ah, hannde no ba léegi ñu ngi remarqué fu muy jël taxi omo ɓama taxi na amul sax lu mu jëlee taxi nee na jëlal ko taxi nee na ay mag yoo xam ne ni fekkee nañu loolu ba léegi ñu ngi dugg nee na loolu tarbiya la nee na loolu am na lu mu doon def si moom waaye bu mu yeggee nee na amul ku ko xam nee na président yi njiitu réew mi képp ku baax nee na jublu na si moom nee na mbir yàlla yobat nee na yàlla day fay bir ɗum noon so a yii do ɗo fof nee na boo gisee li yëpp mu koy wax oɗon nganndi mi heewaani yottaade nee na xam nañu moom moom mi heewaani yottaade nee na xam nañu moom du lu muy yegg si kono ko sababu ku la la mhm. ku la ku am yow la ay yi ñi nga xam ne nee na képp koo gis si ñoom nee na umu la nee na képp koo gis si ñoom umu la nee na umu nii la ñu doxale nee na boo jogee ñu jot boo toogee ñu toog nee na loolu umu sant yàlla la nee na loolu moo wax tax ni ñoom tamit